mais bandi baax na jigéen ju bandi la ñuy wër ndax yow yaa ngi xool samay poj lii lan la yow. ah oustaz Iran man ma bëggoon la koo laaj. mais Iran tamit da koy laaj ba pare mu ne nag man nga koy laaj. loolu laa xam tas moo taxit laaj moo ko. <laughs> xanaa moo wees rek laaj ko li ci xam. bilaay dama nekk di teesam boobu ko ah mais mooy loolu. baa mbaay ay monsieur Cheikh wax. walla Zal. ah wees yaa wax loolu. lii laa wax. mbaa yéen loolu ngeen wax. ah man ñun lii nañu mën a wax Ndoye Ndiaye. <laughs> da ngay def interview ah. yow xoolal ubbil say bët nga xool ndax damay def interview wala defoo interview. laaj si. o yéen. onze mille cinq cent. moo taxit may laaj. looy laaj. réew moo xamante ne nii ñi jàng duñ leen jox seen place. ñi jàngul rek la ñuy teg place ñu jàng. loolu lan la laa bëgg a xam. non loolu moom jeex na fi tey. mais gën genre nit ñi kenn xamul ay kanaar lañ kenn xamul ay mott lañ di leen bokkal micro. ay kaña lañu. dañuy yàq réew mi. <laughs> su boba dañ koy sangoo suñuy poj suñuy yaram di xex di nas na yeen goor ñi ngeen di gees e xam bi dew man sax kuku poudre la xamul suma ma ngañi si golo ko puudaru man safara laay waa saaru xali jigéen yi tamit pourquoi mënu ñoo moytu wax ju vulgaire ngir bëgg bës ku ko moytuul dalay dalay toroxal mais nak oustaz iran ñi mom site internet am nañ ci part de responsabilité rek def yalla mais naka ngay fekke genre nit ñi di leen liggéelo ay choses yo xamanteni xam nga il se tourne dans mon tête. waaye nak ñom dañoo feebul amuñu benn point fort. jigen na nga xess rek ñu jël la. day am point fort. di wok robam bi ni rek. mu melni nga ka belende muy waddal tubay. <laughs> tat loté rek. koy mu ngi fay laté 3500. ndax gis nga sama tat yi dama ko bëgg te fonk ko te gis nga sama tat yi damay sollu jot. ya Cheikhul Ibrahima Baba Lamine Dias. xam nga ni li naayisul. kenn rafetlu wu ko. am ñu nan scénario la. même sax bu nekkoon comédie. waaw ah, bu mu jaayee ngorom ndax comédie wala ndax télé wala ndax théâtre. mais jigéen ñi nag dañoo bari te bokkuñ ñay baax ña ngay baax ba léegi ndaxte jigéen dëgg day jom wax lu bon te teel a meññam. suy nit ku baax sax soo ko xoolee am ci moom kese. mais xeesal ba weex. ñu ne déet a waay. ñu tegal la ci rafet na war ngaa nekk ci écran yi. bu mu ñëwee leen da ngeen a mën a caan rek ngeen di fuurale tànk. waaw mais pourquoi liiru jaan moom télé internet boo dem fekk ko fa te du wax lu jëriñ askan bi. soo bëggut du ko def. non. nit invité na la kay boo commencé laa da ngay juk nga buudee nga dem sa yoon parce que ki jigen la. mais mom day wax rek xamna nak dina wax ba war na bopam 3500. mais nak parfois nga dégg ñu naan jigen ñi ni seen weeni sëggee noonu la seen xéli sëggee. genre yi ñoy confirmer li nga xamni mom modi cliché bobu non amna ño xamanteni ni fakk neen na nañ ne bu ñu wax bu bon wala bu vulgaire. duñ ami vue. mais nak barki Serigne Thiaw di jagal xale bu jigen bu ci dul xalat ñetti fanu ciow internet. kuko dul xalat dula neex defal. man de li la wax mbaa yéen ngeen wax. Ah, man ñun lii nañu mën wax Ndoye Ndiaye. bu ko defee suñu maam mën def ñaan. iPhone les gars, faut toniquer les plus de